asalaamaaleykum mbokk yi tey bis la ci bis yi mën nañ ne bis yi gën a am maanaa ci année bi ki ko waral ki ko waral mooy Kodas kon waa Kodas maa ngi di félicité di leen remercier ci liggéey bu bi ngeen liggéey ci at mi maanaam bu amee organisation koo xam ni liggéey na pour réewam liggéey pour doomam wala rakkam liggéey pour Sénégal kenn jiitu Colas ren ci année bii ñuy waaj a génn kon daa leen gërëm sant leen sant nag ki nga xam ne moo taxawal Kodaas ak ñi sos ko muy sama rak sama jigéen Françoise Hélène Gaye dafay lóob ñaar fukki at ak nangam xamante nañu jàmm nañ séq muy jigéen yu mën góor Françoise félicitations que Dieu te garde waa Kodas yal na leen yàlla sàmm ci dëgg ngeen nekk ci fulla ci fayda ndax nag man wetoon naa ci xeex bi biñ ne Sonko la ñu ne ku ko wax dee ku man kenn rek amul ñaar amul ñett amul keneen man kenn rek aw ma kenn ku ma jàppale man kot ci plateau télévision yi pour expliquer lu tax lii am ay millions millions saaga et conteneurs saaga mais man ku xam-xam ni saaga rey sax yëngalu ma ni tàlli sama kër yëngalu ma dara mënu ma dellu tax a dellu lu ne def nañu ko pour ma bàyyi aji soo ko lekk ko wan ko dëmb ko wax gis ngeen bi aji saar di wax ñu naa leen image bi sama benn kër la defee jàkkaarloo boobu ak presse bi pour la première fois ñu gis aji saar ne woon am na doom sëy na fen yi Pape Alé Niang Ahmed Aïdara Dame Mbodj di wër di fen ak Ousmane Sonko sonal Sénégal ngeen ni ku dàq fen Ousmane Sonko amul ci monde bi koo gën a tàppet kan ko nekk tàppet amul Ousmane Sonko moo gën a tàppet ci Sénégal bii la ku juge o ne ko wuy ma d'abord ñemewul dem gendarmerie bu njëkk a woo ñemewul dem mu ne man député laa nañ ma dindi sama malaanu kiiraay ci yow nga ne guerrier nga buñ la waaye da ngaa war a wuy ñu dindi malaanu kiiraayam ci maanaam bi ñu ko dindee huit heures dix heures ma wuy ji mu ne niñ ko dindee jaarul yoon kon nangu woo dindi bi juge bi oo ko ni ko wuy sama neuf heures mu génn këram nay wër di tambaambaal di tambaambaal di tambaambaal ba milieu di fekk ko croisement Atepa Mermoz te diggante Mermoz ak ak Sërikal Góor gi dama ma trois dama nekk wala cinq minutes wu ñu bi bi ko commencé woon à neuf heures kon Ousmane Sonko tappet la Ousmane Sonko tappet dafa yomb jël télé di saaga président di ngeen a ngeen fekk yow sa bopp weer tàmpet la c'est ça c'est un bon trompe son alors bi midi di diggante ci diggante bi xale yi maa ngi seen TV te di sama kaw laal ne Ousmane Sonko génn këram naa koy xool du ko yor naan ko ba xëy ko euh, journaliste la a mu ngi dox ma seen ko muy dox mu naan oto ba sama ginnaaw oto ci ginnaaw ni kuy dox yore ay bagage am caméra am ak yooyu di dox Ousmane Sonko papel bi nekk ci ginnaawam bu ñu demee ba buntu direction Sonatel bi taxaw foofu en face VDN ñu jógee foofu de contourner jaar biir Mermoz mu ngi raam xale ngi daw di ñëw ndax boobu bi télé yi ñu ngi naan Walf Fadjri ak Sen TV yi ñaari de propagande yooyu waaw ñaari télé de propagande maa ko wax Walf Fadjri TV yi télévision d'information télévision naa sott lañu yi nga xam ni li ñuy def mooy anti gouvernement anti république pour deux personnes Sonko et Bougane Gueye Dany maa ko assumé ni Papa la ñaan jébbaloon nekk yamaru son Sonko boo xam ne loolu aussi maa ko assumé ñëpp xam nañ ni ñooñu bi ñu progressé ba ba ba Mermoz tapet bi te taxaw yëkkati loxo yi xale yi ñëw foofu ñu sànni ay lacrymogène gendarme yi ni ko da ngay ni gaaw te wuyu juge bi mais kooku moom jëlloo juge bee ku ko relee nag xëy na xam ni ko moo war a wax xam na ni rëbës muy dox dox lu naan Blaise Diagne laay jaar Tilène laay jaar génn ji Sandaga tourné ay booru vingt heures laa war a yegg tribunal waa ci ku yem yow juge bu la ooyee au moins cinq minutes avant heure boobu war nga pointé pour bu ñu nee bu ñu rappelé rek nga ne présent waaye pour ne kooku warul yore réew koo xam ne respecté woo justice yow juge oo la à neuf heures d' abord da nga ne woon doo wuy ji ndax tàpp kat yéen tempête la booy mais ci guddi gi mu ne conférence point de presse parce que tempête la nanguwul conférence de presse journaliste du ko mas a poser question ndax sàcc la fenkat la manipulateur la te xam ne journaliste yi dañ koy dégg ay poñ bu ñëwee waxee ne dem naa am kenn du ma laaj dara waaye kii ku naa wuy ji ndax samay avocat ak sëriñ si ak ñeneen ñeneen ma bu subaa naa wuy ji fi ma tëdd ma ne kii du ma sa wuy ji ndax jikko borom ba ci baax ndax boo tàppatee tàppatee la da ngay dee bu dee gis ne muy jéggi jégalu naan président Macky Sall yow nangam nii taxul dina sa way tàppet laa bi mu waxee na la wuy na la wër na la na la wër mu génn këram est-ce que moom dafa yore benn avion wala hélicoptère pour jóge ni cëpp cëppeelu ci palais de justice muy raam di raam ñu ne ko jaaral nii wala nii laay jaar heure naan seen ilaam dañ ko bàyyi mu pare na quatre heures de temps juge la nekk kon moom masoo xalaat wuy ji juge bi ba muy dafa attroupement ñu jàpp ko muy wane ne dañoo dañ ko mën a doon kenn mënatoo ko boot boot loxo yi ci ginnaaw encore manipulation toujours le manipulateur sa waay dama leen di wax rek que pendant cette période là métti na lool ci Adji Sarr ak avocat ndax gis woon kenn j'étais seul seul seul seul seul sur le terrain ku ma woo ma wuyu conférence de presse lay def suñu conférence de presse xale yi xale yooyu may wax les chiens de Sonko ñu mettre leen en mouvement en action ñu saaga rek certains journalistes que j'ai nommé comme Pape Alé Niang mi nga xam ne site bi mu yore Sonko moo ko ko may Ahmed Aïdara bu Sen TV Mansour Abdou Ndiaye fan Abdou seen TV ne Dime bu seen TV journaliste réactionnaire yooyu nga xam ne anti pouvoir lañ nekk pour Adji Sarr yëg ma ci bandi boobu kooku dafa fen ba nëpp kooku damay ragal bu demee bàmmeelam lan lay wax ci fen bii bàkkaar bi gën a rëy tey Adji Sarr woote na nee na daw na aji saar dof na aji saar xelam da ngeen aji saar bi wax waaye daal ko jëlee du ko bi ay bu jaam moom jaam la mën na nekk nag dox bi ñu wax mais mais dañ ni dañ ni mën nga judd ci gëléem namp ci mbaam daal ko jël bu doo jàpp yow yaay judd ci gëléem naan ci maam say mbokk say jabar say doom say maam say baay say yaa bëgg a kàcc mais boo ko jógee bi ngeen fene yow yaa ko tey yow yaay baa doola mais baa ko jógee mooy mooy salte ordure mais day fen di fen pour jox Sonko dëgg mais Sonko kenn mënu ko setal ponkal moo xam nii couvre-feu ñu ne bu kenn génn ngay génn bàyyi sa gàllankoor nëbbu leen yow ngay génn bàyyi sa chauffeur nëbbu ko ngay génn bàyyi borom. jàngee loolu kooku bi yàpp soo ko na bàyyi di fooyee xel li ñu way soo ko bàyyi fooyee xelu nit ñi yow bu sa yaram di metti lépp nga nekk xale da nga def feebar bu garaaw xale bu jël naa bi jàngu faj yaram yow moo lay faj yow yaa mën a kàcc soo ko bàyyi kàcc waay kàcc ci gëmal na alors fan la nga ko di yegg si Kodas mbiru yàlla la Kodas yàlla koy dële Kodas baatin la Kodas du lu simple wax dëgg yi man avocat laa mënuma wax secret de l'instruction mënuma génne détail ci instruction bi waaye am ngeen xel am am ngeen fayda xam ngeen li ngay di wax xam ngeen bandi kuy bandi ku dul bandi kuy violeur ku dul violeur kuy sàcc ku dul sàcc kuy fen ku dul fen kuy bandi ak pour ñu xam kan mooy bandi voyu ak ku voyu ndax am xel am ngeen mbooloo ay xale yu ndaw yu ñu fay ay xale yoo xam ne dama leen a yërëm seen waajur yi wala ñeneen ñi di waat ñuy saaga di fen seen fenkat bu mag bi bàyyi fenkat yi Ousmane Sonko naan aji am na doom Pape Alé yaa nijaayam yu bàjjam laa waxal amul ay dara yi dem naa seen dëkk wax naa tàntaan fen rek fen fen fen fen mais ñi ñoo may kàcc mais ñii ay góor lañ mais ñii xaar nañ seen bàmmeel mais nag ñooyee ndax Sénégal ba léegi dama koy wax am na ñoo xam ne nit lañu nii rek mais duñ ay doomu aadama ñoo mbaam yi ak xaj yi ñoo yem ndax amuñu xel dañoo ne xanax am na kenn bëgg bàyyi man ku ku ma naw laa ndax ku demoon ba réer ginnaaw ku ñëw yow anañ nga am nga xel ndax da nga ràññee xàmmee mais boo persister dans les erreurs et que les erreurs humaines mais la persistance devient diabolique da ngay nekk jàpp ba continuer ci bêtise da ngay nekk yambar nekk xaj nekk dëmm comme Ousmane Sonko dëmm mooy koo xam ni mën nga lekk di daal jël ay xale yu ndaw utiliser leen di utiliser comme dëmm ñu def réer ma ne leen attention benn ndey benn ndey bëggul am bëggul am comme doom ñu def sa liggéey mu ne saaka Françoise Hélène am na liggéeyam El Hadj am na liggéeyam ñu jàppale ak Issa kon daal jàppale ak Issa ñoom seen liggéey ñoo ñu fay insulteur insulteur sos comme Babacar Touré seen saaga sos kaste loolu nag c'est l'arme des faibles Ousmane Sonko et ses valets ses chiens ont développé ont utilisé l'arme des faibles le mensonge la manipulation le dénigrement systématique encore des passeports pour offrir des visas qu'on n'a jamais vus. C'est ça l'escroquerie, c'est ça le faux et l'usage de faux. Et je ne sais pas dire au siège, au quartier général de Yanamar, que vous êtes victime d'un complot, qu'il faut est victime d'un complot, qu'il faut qu'on a vu à travers les vidéos. Cela prouve que l'affaire du Borom Bam le complot, la thèse du complot avancée par Ousmane Sonko est immédiatement démantelée par sa déclaration devant Y'en a marre en disant que c'est un complot. waaw gars est-ce que Macky Sall moo yeewu kilifa ni ko demal jël ay millions laaj bi da ngay defar visa mais Ousmane Sonko dox na mais ñi Macky Sall Malick Sall Antoine Diop sëñ Bassirou Gueye dem si yàlla si Samba Sall ñoo ànd jël ay buum yéemu Ousmane Sonko yóbbu ko suite beauté di ko il faut ñu raay la pour ñu pour ñu porte plainte non attends ma ni Ousmane Sonko Macky Sall mooy jël jël Antoine Diop dugal ci ak ministre de la justice jëm ay buum sëñ Bassirou Gueye ak dem charge si ji Samba Sall ne dem leen jël Ousmane Sonko bu leen chauffeur yi yëg bu garde corps yi yëg bu garde corps dem leen yeewal Ousmane wax naa Khady Ndiaye ndey Khady Ndiaye ubbil ma supporté am na xale yu fa nekk bu ñëwee Ousmane Sonko daal nar a fekk Ousmane Sonko waaye yow xel bi ñu yëngu nag waaw loolu complot ñëw ci yow ñëpp war a daw foo ñu mujjee ñu raay la mel ko sama kër pour quelques minutes ko wax ñibbi Babacar Touré fekkat bi nee na sama kër la ba nee na ma génn dem daw dem ci benn station toog sax mu ne génn na kër avocat bi dëkkoon aji sax billahi wallahi talaay mosu faa sama kër mosu faa lekkee mosu faa añee mosu faa reeree kon mu dëkkee ay weer benn bi dama koy jóg encore le matin nee na génn na kat tontu avocat bi dégg ci benn station toog fa ñu fal ko maa ngi koy jóg dama ay fen yaa ma ne kàcc yow doo ko jàpp bañ ko yow du nit nee na dama doon rek moo tax benn ma xam ne dama lay may bëri sax loolu ngay wut kenn xamul la tur ngay wut ndax dama am tur macha allah élargi bi ma am tur yow boo amee man ci ma ngay wut tur yaa daa boo yëpp ci ma ngay wut tur ñu teg ko leen dara un pour cent daam am syndicat bu jël daara syndicat enseignant enseignant nan la ko bi wënde wax rek bi kalaate na kooku la kalaate mooy juge bi moo xam ne dossier bi xam na ñoo mën a kàcc fen nañ ma billahi fen nañ alors dama ni jàmm sama yeggali affaire Ousmane li koy nekk xam na ko li koy ne xam na moo tax nangul wuñi dégg li ma xew mu ne Barthélémy Dias man de buur yooyu ma wuñ ngi préparé ëllëgam hey ku dox mu ne Barthélémy day wuñ waaye man mënoon man dama wuñ ba jaay doon wax waaye comme bëgg na dem nañ ko accompagner di ànd ak moom nañ mobiliser loolu la wax mu ngi bàyyi xel ëllëg bi nga wooyee ma man Barth newoon naa dama wujj ñu ne la mosoo mujj juge bi muy dem keroog dañ koy jël yóbbu gendarmerie mën na militaire yi ndax tàppet la waa ji xustu la xut tàppet la Ousmane Sonko tàppet di ragalee prison xam nga la koy wan sëñ Mountakha Mbacké baax yàlla fi yàgg jëlee ñu ñëwee dinaa fekk naa ko ñu dee ci ay wërëb lañu seetaane la foo ne sëñ bi day mel bu ñu mën a sëriñ bi ci moo rey nit ñi Ousmane Sonko est un criminel Ousmane Sonko ñi fi dee moo leen rey ku wax moo tax combat ne leen jaral seen bakkan dee leen pour man Ousmane Ousmane le tueur Ousmane le criminel Ousmane le bandit alors sëñ bu wut réew jarul benn bakkan benn bakkan ku ko faat boo def safara sëriñ bi day wax de mu ne ko xam nga sëriñ bi Karim Wade dafay jaaroon ak Khalifa Sall moo tax sëñ bi he sëñ lay àll dama ni la wutit wi te li ma la politique la te politique ak prison ñoo ànd daal mais sëriñ bi fu bi dafa ne ko Khalifa dafay jaar ak Karim sëriñ bi ne ko loolu politique la di politique ak prison ñoo ànd waaye comme Ousmane Sonko moom du politicien moom bandi la ko ci politique day bëgg imposer dictature bu jël réew mi xamul sax luy politique fàtte gi maa ngi koy nuyu ba ñu jàng université lañ nekkoon ay syndicalistes di a suñu moromu étudiants yi moom jigéen woon mais mu ci woon loolu la continuer ba léegi man ba léegi mënuma leen a baal euh, euh, koo xam ne c'est victime de l'injustice sama yaram dañ koo muul ci loolu comme moom mais soo ko université boo ko sa dégg université bu xeex fa def ay alal bi mu ñëwee mu choisir trois borom de bëri xaalis muy impôt yi doonee sàcc suuf di jaay danaa ne am naa preuve suuf yi jaay ak yi sàcc biñ tëjee biñ tëjee biñ tëjee tali bu jaay dafa tiit ndax mu doon courtier tali bu jaay moo tax mu ne woon dafa gis Mansour Faye te wedd na ko dina mos koo gis mu ne ki nekk Cheikh Issa Sall boobu mooy ci mooy patron euh, Mansour Faye dimbali ma gis patron mu gis ko ñëw raam ñu ko dimbali leen nga ma gis président Macky Sall ndax mu bàyyi tey boobu boobu lay xalaat bu yow di xas Mansour Mansour dafa yow yow ñëw nga fi dara sooy tàkk boo nee pré ma génn preuve mu def ne fenn ngeen baal ma ci kàcc dafa rew moo tax man feneen mbir yi bu la ko delloo li nga li ko nit ñi loolu laa koy wax moo dàq fen kii bu mënoon wax mu gën a garaaw am na la ginnaaw fen mais nit ñu baax li ma déglu ak yiw dara du ko wax waaye li muy def gën a fen léegi mu ne masul gis tudd Mansour Faye jënd sa yaa xam bay génne audio balaa sax mu ne non lii boobu Mansour nekkul ministre dañ koy kii mu mën a fen est-ce que mbir kii dafa def mosul gis Mansour Faye Mansour Faye ne ko léegi mu ne warul nekk ministre la parce que goroom mooy président moo tax mais Mansour du dara Mansour ko man du ma dara de sama goroom moo tax ma nekk ministre d'accord mais sama goroom boobu moo taxoon nga ñëw seet sama démarrage pour gis ko parce que boobu am destructeurs, armée de bandits, de criminels, de tueurs, dirigés par le général de guerre, de guerre, de guerre, de guerre. Général, le chef chef de gang, le chef de gang, le chef des bandits, le chef des terroristes, le chef des manipulateurs, le chef des voyous, parce que man sa dëkk taal yàq ko yaxeet ma su gis benn avocat ci monde bi yëpp buy laal këram wala ñu taal ko ndax bu ngi demande benn jigéen wala benn nit rek contre benn homme politique kon li ma lay waxoon Ousmane Sonko du homme politique sëñ Mountakha lu la ko waxoon te loolu mooy dëgg nit la koo xam ne kenn xamul fu mu jógee bëgg a taal Sénégal moo tax bëggul dem wuy ji fanta bëggul dem justice ndax nee na gëmul justice boo ko wax nee na gëwuma justice gëmul assemblée nationale moo ko wax bi ñu ko wooyee quatre-vingt-quatorze milliards yi nga wax ci Mamou Diallo kay jóg di firnde bi commission d'enquête mu ne ñëwuma ci moom ci moom moo ko dénoncé bi kii bi yabaate ne gëmul président de la république du ma sa wax le président Macky Sall Macky Sall Macky Sall mais président Macky Sall trop le mot président da koo génne waaye yow amoon may quinze pour cent doo sax deux seeg deux mooy deux seeg yow yow yaay yow yaa doole Macky Sall quatre-vingt-cinq pour cent lu amoo ci élection yi tax nga ndegam bu Karim Wade bokkoon ak Khalifa Sall ku ne am sept pour cent sa plus forest yi la yóbboon assemblée nationale moo ngi koy dese daan heure boobee di plaider di dem di bàyyi dama nekkee jeune avocat bokk ba morom sama xarit Seydou Sané mooy président Casa Sport ma nekk la président Jaraaf de Dakar xam naa ni amul ñaari jigéen sax xam nga élection locale la du élection équipe nationale ñun ci kaw ñu nekk am ñu ko teel te Karim bokkul ak Khalifa moom rek moo doom doomu Ziguinchor doomu Casamance bu nekk candidat parce que Macky Sall Fatick la ak Fouta Idrissa Seck Thiès Madické Niang Saint-Louis Issa Sall Tataguine mu def campagne bi Ziguinchor ñeen ma rek may seen doom ma ne kenn doom keneen ci Casamance xam nañ ko ci Macky Sall ay rebelle ñëpp la jël ko rek ne li ngeen bëgg yëpp maa nekk jox na la ñëwateel ko mu gagné mais gox goxaan yi biir Linguère Sow mosoo dem Génte mosoo dem Thiel mosoo dem dëkk seen HLM Neymar ki mu dëkk xale yi nee nañu ma mosul jënd benn ballon bu jël quinze mille francs pour ñu que moom mu doon Casamance yi. élection présidentielle waaye ñii nekk ci génn yi di soññaat ci Ziguinchor comme ñoom Doudou Ka comme ñoom Seydou Sané comme ñoom Benoît Sambou comme ñoom Innocence Ntap Ndiaye comme ñoom Aminata Angélique Manga comme ñoom Abdoulaye Wade ñooñu dañu am base affective ndax kër gii.